tay rek ñu ngi fi daje ci atelier bo xamné ne commencement la rek ndax dañu jëm ci li ñuy wax ben ndaje bu yaatu ci secteur bi ñepp tok ci kanamu ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla bi may remercier di ko saluer au passage pour wax ko suñu difficulté wax ko nakar yek li mbir mi Fofu du am tabu dañuy waxtaan manam famille buy dajé la secteur bi ñoy daje ñepp nak li ñuy wax niveau central ci kaw ba ci souf kèn du des ñepp la wo ñu tok ñu ne kat tay dañoo dajé nak ministre ñu ngi ni am nak ay jafe-jafe wax ci suñu plaidoyer dañoo bëgg aussi li ñu waxal ñuko ko président ñu def lool nak pour ñu def ko du teub rek diko wax ni dañuy préparer ay documents yu deuguer yoo xam ne bu ko président jotee rek dina xam ne ñi kat ñu ñu taxaw lañ nag ci mbir mi loolu benn document bu ñuy wax document rapport lay doon rapport bi day am plaidoyer ci biir rek lu ne présenter secteur bi wax jafe-jafe yi def ay recommandations jébbal ko ministre de l'éducation nationale euh, le 29 fële ca Radisson Dakar mu yóbbul ko président de la république. secteur bi dafa boole alphabétisation boole langue nationale daara mu ngi ci mais tey du ñu wax waxu daara rek la ak langue nationale financement bi dañ ko seppi def ko benn atelier parce que lu am solo la ñu jël beneen atelier def ko maanaam euh, politique yi ñu war a def ak nuñ koy saytoog yëpp mu nekk benn commission bu ñu teg nii ñu def beneen commission boo xam ne nag pour promotion des langues muy ñetti commission yoo xam ne tey commencé nañ ko war a def li ñuy wax rapport yi jëkk yi ci secteur bu nekk ci ci euh, kii bi. Euh, atelier bu nekk buñ paree nag ñu boole ko defar ko mu ñetti euh, document ñu yóbbu ko nag d'abord webinaire parce que xam ngeen nag ñu ngi ci Covid bi euh, fi mu nekk nii buggoon nañ lu ëpp lii mais mënuñu ko ndax tey jafe dina am sax ñu participer ci atelier yi mais en webinaire bu buñ buggee nag ñëpp ñëwandoo dañ koy def d'abord xool document yi ñep war ko xool niveau déconcentré niveau central ñep war organisation de la société partenaires techniques et financiers les institutions tout le monde lolu webinaire rek mo ñuy permettre pour ñu le ko valider buñ défé webinaire le 28 dañuy dem nak ci forum des fois ay rencontre des am mais nuñu des rencontres, rencontre bi xawna déjà fait par rapport à beaucoup de choses.

proposition yoy buñ ko paré nak ñu djébal ko autorité yi pour mëna a jëlaat gu bess qui permettra à notre pays aujourd'hui vraiment ñu mun a wàññi lu baaxa baaxa baax goor baax jigéen yi nga xam ne mëntu ñoo dugg école alors que mun ñoo bind ci benn kalaama